une Production, Gran est le meilleur site internet islamique au Sénégal. une Production. Islam Zaganam. Islam Zaganam. Islam Zaganam. Bismillah. daal di wiccax sëñ bi ne ko saf ñaw digal ko digal ko mooy jàppe ko dara mu daal ko jàppee dara sëñ bi ne ko maxtaar sawara moom ku seen waaj ñemewu ko ne ko biñ nekkee ci géej gi bis yi tubaab yi daan lakk nit ñi dañ ko daa ay ay loo ne ko saa Mori Touré keroog ba mu aayee fekk na ma fa waaye dane ma dama bëgg nga dox sama digganteeg sawaru ëllëg ma ne ko danaa dox sa digganteeg moom waaye maxtaar booba bu waxoon woowa sax du ca lakk waaye da ko wóoluwu ko defe woon na ne moom faaw mu lakk daane ko dañ koo jël lakk ko ba mu mu sànni ko waaye maxtar cëy seen waa ji ba mu aayee luñ doon lakk benn yoon dañ koo def ñetti yoon ngir ne lii faagaagal nit ñi du ko faagaagal ne ko dañ koo lakk keroog ba mu mel ne ak soy ñu ubbi ne ma ca yulub tëj ko bàyyi ma ca bàyyi ma ca ba defee ne bu doon luy ñor sooy naa nee na ñu ne ubbeet fekk ma may julli ne ko keroog ba ma ne faa tegg sama tànk ab sedd toppe na ma fa boo xam ne ba fi may waxe yow maa ngi ko yëg maxtaar kurul seen waa ji ñemewul sawar keroog loolu la ko wax te yooyu yëpp suñ jëmm yi moo tax daana wax ne bokk na ci tubaab yi yooyu ñu ko daa def am na bis boo xam ne daa am ku ne kii li ngeen ma ciy dimbalee mooy ngeen jox ma ko te wutal ma cin lu mën a def nit sëñ bi daana wax ne cin loolee de dong leer ga dong leer ga ñett ñu am lef ñoo koy ñoo koy jàppoo dong leer mooy kubéer ga sëñ wax baatu tubaab dong leer ga ñett ñu am lef ñoo koy jàppoo nee na am na bis boo xam ne ci lañ ko def nee na di ko xamb di ko xamb di ko xamb di ko xam ba defee ne bu doon luy ñor fi mu ne war naa ñor nee na waxtu suñu borom bi jot ma wax suñu borom ne ko waxtu yi de mi ngi jot nee na suñu borom ne ma dinaa def ci seen xel luy tax ñu dindi nee na ñu xoolante jàpp ne ñor naa fi mu ne ñu daal di ubbi daan ne waaye kulbét ja ak bëreet ja ñoo ànd te loolu ñuy wax buur sax def na te rabbi bi maa yasha'u boobu ñuy wax am na ñu ne foofu la ko taalif ci biir ci loolu yi te foofu la waxee irham xam ne ñu ko doon def loolu sax daa na leen ci. kon li ñu war a gën a xamaat mooy kennal kooku te bañ koo booleeg dara te xam ne lim ñu defal ci suñu bopp ko am na ko ñuy wax sëñ Modou Anta bàcciloo daanaka ci am xel la sëñ bi daa waxeek moom daa am bis mu ñëw ci sëñ bi fekk sëñ bi yor ab kaamil juutal ko mu wax ci mu xelam ne nekkate ab kaamil dees na ko juutal sëñ bi ne ko Modou Anta bàcc maa sañ lu kenn sëñ mu waxaat ci xelam ne am xel dees na ko tontu sëñ bi ne ko inna allaha laa yaxfa alayhi shay'un sunu borom dara nëbbu ko am bis am mbokkam mu faatu mu bëgg mu ñëw mu ñëw ci sëñ bi bëgg mu ñaanal mbokk ma nag dadul am murit mu rus koo wax sëñ bi waaye daay ñëw rek toog xalaat bi mu ko xalaatee tuuti sëñ bi ne ko mu du anta bàcc tibbal foofu suuf jox ma ma ñaanal mu tibb suuf jox ko sëñ bi ñaan ñaan ba jàgg mu jox ñu ko yóbbul waaye boo demee dana am kersa lool de dana rus mu toogaat di xalaat ñi dajanteeg sëñ bi te joxuñu seen bopp sëñ bi te mën a jaamu yàlla lool te mën koo sellal ndax bu ëllëgee daañu am àjjana loolu it da koo xalaat rek sëñ bi ne ko ma du anta bàcc mu gi xool ko mu ne ko lu dul jeex de ku ne da cee waaye cey kon loolu rek la dul jeex de ku ne da cee waaye cey kon masaam ñett ñu ànd ñëw ci moom kenn ka daa yorum njaboot ca këram guy bari kenn ka ñaar képp la yor ci këram kenn ka kenn képp la fa yor ba ñëwee ba nuyoo kenn ki ne joxe naa nangam ci sama njaboot kenn ki ne joxe naa kenn diw sàngam ci sama njaboot kenn ki nga xam ne kenn képp la yoon te moo yor këram muy nig nigal xamul nu mu war a def sëñ bi ne si gét xool ko ne ko àndaar ana bu dee jenn ci kër nu ñu ko war a def mu ne tekk mu ne ko danga koy faru su delsee di sàq da koy faru su delsee di sàq noonu la daan defenteeg ñoom nga xam ne ku toog ak moom rek sëñ sëñ sëñ sëñ Moussa Halima ba ci ñoom da daa sar ci ñoom sëñ Moussa xalima Gueye dafa am bi sëñ bi woo ko yor am mbind ne ko Moussa bindal ma lii daal koy tëjaat te gisu ko gisul mbind mi mu dem bindi ko ba ba mel na war a mel moom sëñ Moussa xalima Gueye bi mu noppee bi mu koy indi nii la sëñ bi jële mbind ma nii lii la la mu jox ko ko mu dugalaat ko ci biir nga xam ne kenn wër koo gis ba muy ñëw nag dafa fekk Cheikh Ibra Fall bi mu ñëwee ba jub sëñ bi daal di taxaw sëñ bi ne ko yaa musa aqbil wala min al aminin mu daal di ñëw bi ñëwee Cheikh Ibra ne ko musa yow muus nga lool di ana nooy binde loo gisul mu ne ko yow it yéeme nga lool di ana nooy loo fekkewul ana nooy loo fekkewul nga xam ne ñoom lañ daa def Cheikh Ibra Fall moom nii li sëñ bi doon wax ci moom léegi sëñ Tuubaa kenn du ko xam mas nañ laaj ne ko ana loo xam ci sëñ bi mu ne xanaa le sandax bi dara ci guy gi am na bis sëñ bi ne Ibra Fall day bàyyi na boppam bàyyi bokkam bàyyi boroomam ngir man ma defaral ko boppam boole koo ki bokkam marale kook boroomam boole naa kook ñoo xam ne buñ gënuli bokkam it ñoo gën ay bokkam ci moom am na bis am lu am koo xam ne daa am bëggoon ab barkeelu barkeelu ci sëñ bi ñu ne ko da ngay wut lu mel ne li sëñ bi sol ci saaxiir dem indi ko mu dem wuti ko ñëw jox ko sëñ bi sëñ bi bi lépp da koo xam naka mu ko téye ci loxoom daan ne lii ana lu dem xaymaam am ñu nara tontu Ibra Fall jóg ne ko ba nga ko téyee gudde nangam moo doon ab xaymaam waaye bi nga ko xasee téye amatut xayma bu ko sëñ bi masaana yónni donte fa mu ko yónni dara nekku fa bu ko nee da koo gisagul danaan ko maa ngi koy waaj gis waaye mës ta wax sëñ bi déedéet yooyu yu ñu war a royee ci moom la mës ta wax sëñ bi déedéet mës ta dil si ne ko la nga ma yónnoon yoru gis moom moom day wëreelu rek bu ko sëñ bi ne gisoo ko mu ne ko maa ngi koy waaj gis mas nay xelli ataaya di ko xellee ci càmmoñ bi sëñ bi ne ko Ibra Fall ab càmmoñ kenn du ci liggéeyee mu ne ko mbàkkee cër yëpp la war a liggéeyal yëpp la war a am na bisit mu jël ak kaala akum mbaxana ak dàll aku dem ginnaaw kër aku yat ñëw ba ci keesug sëñ bi mu teg ko fa daal di dem waxut dara moom Cheikh Ibra bi sëñ bi julli si julli daal di génn yam ci bi mu ko gisee daane ana ku fi teg lii sëñ bi bu ma saana wax kàddoom day riir ba lu nekk ci kër gi lu ne la nga dendal dana la ko jot donte du nit nee na léeg daana wax ba ba kubéeri ndaar yi ndaa yi day yëkkati ko buy wax kubéeri ndaa yi day yëkkati ba du laal ndaa yi bi nga xamee ne wax na loolu ñu daal di gëstu ku mu doon bi mu julli jee ba ñëw mu ne ku mu doon ñu ne ko Ibra Fall dee mu ne nañ ko woo ndax mu wax lu mu ci jublu suñ bi dawul wax ci ginnaaw kenn loolu ñuy wax jëw daw ko def daw ko def daw ko déglu nit nañ ko woo ndax mu wax lu mu ci jublu ba mu ñëwee suñ bi ne ko Ibra Fall ana jubloo lii mu ne ko dama ne ku fi sol li muy mbaxana mi mba nga sol fi li muy dàll mba nga sol fi li muy kala gi dana la dor ki ba nga génne li nga xam ne li mu bëgg wax wax na ko te waxul baat bu ñak tëdd ben baat bu ñak tëdd yoy nak dafa am yuñ ci wara jang ya yaa bi yaa xereñ daawoo werante kub sëriñ ba jobi ya bari njëriñ wane wi yàgg ngay naxe yaa xam sëriñ bi yaa xarañ daawoo werante gub sëriñ bajo bi yaa bari njariñ wane wi yàgg ngay naxe xam ngay dërëm ba xam ngaram fam nga dërëm jëndey ngaram lu masa tabal këram ay bi maslaam yi nee na mu ne sawara da dafay ñëw di ma laaj wàllam ci ci sama ñoñ ma xamal ko ne man amoo wàll ci man ndax awma luy lore bam naa ko ba wan ma ginnaaw ma ne ko xanaa nga dem ca Ibra Faal ñey diingat Ibra Faal bu ëllëgee nga xam ne ñooy sa cër bu bu la ko xa bu leen jéggalee nag nga xam ne moo la ko xañ neen loolu la ko bu leen jéggalee nag nga xam ne moo la ko xañ nii ñu ajoo ci sëñ Touba ñun nit ñi itam noonu la malaayika yi ajoo ci sëñ Touba di ko siyaar si loolu bind na ko chakarani inda jamihi jundihi raamu siyaarati maan min hindihi am na bis sëñ am satu jaxati sëñ bi woo ko mu ñëw fekk sëñ bi ci melokaan woo xam ne jàpp na ne waru ko caa fekk mu génnaat sëñ bi ne noon naa koo ko xam satoo sëñ bi ne noonu naa koo ko xam satoo mu ne ko waaw mu ne ko agsi mu ñëw nara toog ci wetu càmmooñ gi sëñ bi ne ko doxal nii te ñëw ci wetu ndeyjoor gi bi ñëwee ci wetu ndeyjoor gi toog ab diir sëñ bi ne ko am satu mu ne ko mbàkke mu ne ko ku amee puutar te mënoo jam mbaa boo mënee jam ñemewoo ci àll bi da ngay seet dan bu mëna jam tanya ñëmé ci all bi nga jébal ko say poutar ne ko yeen ñima jébalon seeni poutar day soyu leen ndax duguna all bi rebbina ba ñew li amon njariñ ci all bi lepp andil na leen ko dara desatul luddul iba setal loxo yi ba mën a ci rebbum sëñ am ne ko mbacké de buñ ko sañon dagaan la fofu sëñ bi ne ko sañ ngeen ko mu ne ko nun day mbacké tak gi yalla bindé ba taxna na no set te suñ taq gii kat xëjamul sa set gi te sa set gi suturaal na suñ taq gi ma bëgg nga yërëm nu sarax nu dimbale nu ba nun mën a def jëfandiku ci rëbb mi sëñ bi ne ko noonu la soobee sa borom daane ko am sët loolu sax daa taxutoon ma di la woo dafay gaar rek dafay gaar li ma la doon doye mooy Seydina Jibril léegi la fi jóge ma di la xamal ne lu weesu tey soo ko fi gisatee siyaar si maa ko fi indi waaye du lenn ndigal lu muy jële fa sa jële fa sama borom di ma ko indil mbaa xam-xam bu may xamal si ndax li des ci li may séq ak saa borom saa borom seppi na ko ca ba mu set wicc te bu ko ca wanoon lu toll ne sarra dana ruy ba mel ne kawar gu ñu dugal ci taal ñu ko am sotu mu ne ko mbàkke mu ne ko li des ci àdduna day bokkaale gi sama borom gën a bañ mooy tudd ñi di ca teg keneen mbaa du ngeen ko def mu ne ko fasuñu ko yéene sëñ bi dem ba am lu muy bëgg a waxaat daal di jël kaala gi teg ko ci gimiñ gi ne ko li des day sama borom daa nëmmul mu feeñ fii waaye ba booba waaye ba booba loolu yi la tontu suñu am satu mas naa woo maam Thierno ne ko Thierno buñ tuddee yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam lu ngeen wax ñu ne ko dañuy wax sallallahu taala alayhi wa sallama alayhi salaatullahi sëñ bi ne ko man nag daal di joxañ boppam mu ne ko xanaa nga dimbale ñu ba fuñ la tuddatee ñu xam li ñuy wax mu ne ko fuñ ma tuddatee da ngeen di wax amul moroom ndax ku ci jàq ci yéen wooma mbaa nga am aajo wooma danga xam ne aw ma morom da nga xam ne aw ma morom loolu yi daana ko digle su ngeen gisee fu ñuy tàmbali di wax bisimilah loolu dañ leen koy baaxe daa koo xam ne ku ñu wax sëñ mat ja daa bis mu am ko mbokkal ñuy jëfandiku xam naa aw turam kooka daal di raxasu ba nopp daal ne bisimilahi xaalidun walid mu daal di téye loo ne ko loo ci jublu mu ne ko dañoo wax ne loo ko lekkaale mu rees mu ne ko man de bokk na ma ak maam Thierno Ibra Faty raxasu ba nopp ne bismillahi xaalid dum nu walid mu téye sama loxo ne ma loo ci jublu ma ne ko dañoo wax ne loo ko lekkaale mu rees maam Cerno ne ma bokk na ma ak sëñ Tuubaa raxasu ba tibb mu téye sama loxo ne xaalid dum nu mu téye sama loxo yëlëb tibb ba ne ma ana loo ci jublu ma ne ko dañoo wax ne loo ko lekkaale mu rees sëriñ bi ne ma Cerno ma ne ko Mbàkke mu ne ma fu ngeen neetee bismillahi sama tur képp la yàlla di dugg sama képp la yàlla di déglu noonu lépp lu ñuy wax wala lu ñuy def dañ ko war a tàmbalee bisimillahi barke borom Tuubaa ñu xam ne itam li ñu am daana wax ne yéen samay taalibe bu leen jël seeni njuur di ko wéer ci am ci ay dem joor bu leen jël seeni njuur di ko weer ci ay dem joor ndax sama benn taalibe bu ne moom ñaari saxaaba yi yonente bi ñoo yem am na bis sëñ sëñ Malick Bassine si ak sëñ Mor Khady si sëñ bi ñu ñëw siyaare sëñ bi dañ daan def bu ñu koy siyaare lu mat fukki meetar la ñu raam bu leen yeewee ñu raamaat lu toll noonu doog a jóg bés ñu def ko nag fekk fa soxna fat ja bañ ko defee ba jóg sëñ bi ne soxna fat ja ñaar ñee xam nga leen mu ne ko déedéet fekk xam na leen waaye ñoom bu nekkee ci sëñ bi duñ bëgg xam dara sëñ bi ne ko ñaar ñee de rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam daa bëggoon lool ñu bokk ci ay ñoñam waaye man la ko yàlla jagleel te ñaari taalibe sëriñ Tuubaa la sëñ Malick Bassine si moom am na bi sëñ bi ne ko demal wutal ma mattum sump yak say ñooñ bam démé banyu, ba ñew kenn ku ne da nga samp saw say tok ci wét ga ndax bobu sëñ bi da nek ci biir génn gu bam mu kenn ku ne da nga teurel saw say tedd ci wét ga mu daal leen wër ñew taxaw ci wétu penku soow gi jublu penku ni ñu def daal leen na ngeen sant yalla seen borom bu baax mom mi leen taxa bëgg dal yabal leen fa am dara xiir leen ba ngeen def fa seen dara na leen wóor ne da ngeen am dara ñun tamit yàlla na nu yàlla defal dara ci dara dara yooyu nit na ku ko bëgg war a xam ay digleem ak i tereem Serigne Touba lu dul lu yàlla digle diglewu mës sa am complexe itam ci def ko ak fu mu mën di doon am na tubaab bu mës a ñëw fekk sëñ bi yor ab kaamil mu ne ko maarab bu aal ma sa téere bi sëñ bi ne ko téere bi ku setut du ko laal mu xool loxoom ne ko man de midi jotagut te ci subaak léegi sangu naa fi ñaari yoon sëñ bi ne ko fa sa sobe nekk sa loxo mënu faa àgg ndax innamal mushrikuuna najas yéef yéefari mushrikuuna yëpp ay sobe lañ daana wax ci digganteem ak tubaab yi am na bis ñu woo ko wooyu bari yi ñu ko daan woo ci ñur njëreem am ku ko ne mbàkke de fi ne war ngaa wax ak ñoom ndax ñi ngi lay lii moom dafa metti magum jëmm fu ñu toll di ko woo su ñu ne ko lenn luy luy nuru lor de du bàyyi ko ca ñoom jëm ci man ndax suñ borom mi ma booleeg ñoom moo ma xamal ne maa daa tege te tegg naa te nangootuma ko teg maa daa tege te tegg naa te nangootuma ko teg Serigne Touba moomu nag am na bis am ku ñëw ne ko ñaanalal ma. Sen Production Gran et le meilleur site internet islamique au Sénégal. Sen Production. Islam sa kanam. Islam ca kanam. Islam ca kanam.